salaamaaleykum moom mbokki internet Cheikh TV Dakar nuyu naa leen damay dikk ak yéen ci seen buzz de la semaine ngeen ànd ceeg soxna Awa Diop. dama koy door rek cool politique li nekk ci réew mi ginnaaw Ousmane Sonko bu mu amal la ni mi lim doon def daal mën nañ ni farce état la ba tax na li mu waroon def daal ko ba askan ni day def ab. déclaration nee na daal lii yëpp farce la waroon na ko teel def ba lii yëpp du si am moom moom mi ngi ni ngi xamle ba tey ni euh, jamono yi nga xamante ne askan wi ni ngi soxla ndimbalam avant lii di am ci inondation yi nguur gi waroon naa génn taxaw leen bu yàgg waane deful loolu benn yoon donc lii mu def nii daal jàppee ko leen lu dul yàpp gu jiitu réew mi yàpp askan wi ba tey ci coowal mbënd loolu la ñuy des ci Aly Ngouille Ndiaye mi defoon benn sortie ci soir d'info fële ca Télé Futurs Médias mi ngi xam ni moom il est prêt à rendre compte devant l'Assemblée maanaam euh, ñu nekk ci euh, pencum ndaw réew mi bu ñu ko laajee ci gestion inondation bi daal pare na pour rendre leen compte wax ci ak ñoom ak ñaata daal la ñu dépensé ci ab xaalis coow daal am na ci 750 milliards yooyu l'ex-coordonnateur du plan décennal de lutte contre les inondations yooyu ci yàb yooyu ci yàb bi benn yoon nee na daal moom amul benn explication bi mu ciy def ginnaaw bi mu leen euh, bi bi mu leen maanaam gestion bi mu ci jot a def nee na même bu dalul seen xel daal du ci yëy yàbbi foofu daal la ci yam ak nit ñi Ousmane Sonko moom ci benn sortie bu mu defoon ginnaaw bi mu demee seeti yi ñii di sinistre yi ci banlieue bi mi nga xam ne moom ni kenn di chef opposition maanaam moom kenn di ko jiite ci opposition ba tax na deux milliards yi nga xamante ni dañu ko war a dénk ki di nekk chef opposition du yoon ginnaaw bi population nekk ci ay jafe-jafe yu métti ñooñu daal lañ ko waroon daal di dimbali mais waruñu ko jox benn chef opposition mu koy def ci gafakaam dañu ñëw ak yéen nag ci jàng ak jàngale ginnaaw recteur bi eh, Ousmane Thiaré jiite UGB moom mi ngi xam ne ni eh, étudiants yi daal dañoo war a daal di ñëwaat ci enf yi amalaat njàng mi bu baax ndaxte jamono yi Euh, retard nañ bu baax a baax a baax ndax mbas mi mi ngi joxe daal ultimatum di xam ne ni étudiants yi daal euh, bu ñu bu ñu deful nànk daal dinañ nasaxal année bi te loolu daal warul am ndax réew mi ci boppam moo soxla jàng ak jàngale ngir avancé. ba tey ci jàng ak jàngale la ñuy dese ñëw ci euh, ministre de l' éducation Mamadou Talla moom mi nga xam ne ni ñu ngi amal bu baax affectation yi ba tax na mille dix neuf mille quatre vingt quatorze

Euh, waa Juventus ñoom ñi nga xam ne ñi génn nañ benn communiqué euh, di xam ne ñi am nañ euh, perte nañu soixante millions d' euros ginnaaw bas mi ndax nee nañ seen i finance yëpp daal comme ni ñu ko xamle sont dans le rouge à cause à cause du coronavirus ñoom daal ñoo ko xam ne ci àdduna bi ñu génn ci benn communiqué. ci tàggat yaram la ñuy des ba tey Vincent Labrune moom mu ngi xëccoo li nga xamante ne mooy président. Euh, groupe ligue bi ba tax na euh, këral yi am ci seen biir yëpp jamono jamono ji daal metti na ci seen boroor ba présentateur Euh, présentateur, ancien, présentateur et ancien président du Paris Saint-Germain Missa Deñba était mon tamit euh, mini won ci coow loolu ba taxna ni ngi ci xëccoo bu metti te leer ba leer daal mooy ñu jiite wàllum sport daal jamono yi nee dinañ amal élection ngir xool kan mooy jiite Vincent Labrune wala Michel Denisot. confédération africaine euh, bu football moom mi ngi xam ne ni Sénégal daal lañu délégué ngir mu amal euh, euh, ngir mu amal jongante yi di beach soccer yi 2020 yi nee nañ daal Sénégal daal lañ tàbb ngir mu amal ko euh, ci jeudi bi ñu génn daal la ñu xamle boobule information. dañu dikk ak xew jamono mairie de Médina un agent municipal arrêté pour vol à Sow daal ñi nga xam ne nii dañ koo jàpp ngir sàcc maanaam defee eh, defeere nañ ko au pour. deuxième public yi mu laal ndaxte am na ay briques yi nga xamante ne moom lañu ñu tegoon foofu ngir daal di defar benn pare te après vérification daal ñenn ci ñi fare ci biir mairie bi dem nañu fekk ko buntu këram loolu daal lañ ko tegaloxo euh, mi ngi nekkoon fële ci meeru Médina. ba tey dañuy des ci coow bi mel noonu di benn conseiller municipal bu daal di xaru euh, euh, mi ngi dëkkee fële ci diwaanu caare njal gi ci région bu Fatick moom daal nee nañ dafa daal di xaru ndaxte mi ngi doon xam ne ni bi papaam àdduna moom mënul dundo sans papaam papaam da ko da ko yeggoon fu sori ba defoon na ay tentative yu bëri ngir daal di xaru mais xaru fan yi ñu génn ci àll bi ñu génn dañ koy jeexale que benn xew-xew bu xew diwaanu Mbuur benn xale bu góor bu soupçonné faamam bu soupçonné jabaram ni daf koy trompé moom daal daal dina koy eh, jam paaka ba mujjee nañ ko teg loxo ba dañ koy daal di tëj eh, cinq ans ferme jërë ngeen jëf ci kóolu tëgeeg bàyyi xel gi dee leen wéy di abonné ci Dakar